bu baax téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñetteelu ziyaara bu Taïba Ñangeer dëkkub Cheikh Ahmed Boucar Niang alkabir bi jaaxle lool ci melokaan seen yoon bi dox diggante Lamaram Taïba Ñangeen jëm Ndiédiène xàll wi yàqu-yàqeet ta kuréel gi ñu dénk waajtaay ak organisation ziyaara bi di wote wàllu jëfe-jëfe yi bi si jiitu mooy yoon wi yoon wi nga xam ne moo baxee ko Lamaram jëm Ndiédiène kon yoon wi yittee la boo xam ne moom tëli yi lañ si soxla waaw juróom fukkaat juróom benn fukkaat ñu ngi jàmbat yoon yi mënta cérémonie feeg siyaare bi lu mu jamp jamp lu mu métti métti ñu defar ko defaraat pax yi arrosé ko ngir oto yi danañ fa bëri suñ kilifa xalifa euh, Cheikh Mamadou Mahi day ñëw ànd ak njaboot ak Cheikh Ibrahima yëpp ci benn comité départemental de développement spécial buñ doon amal ngir waajal xew-xew bi ñoom ñu ñu dénk organisation ziara bi di jàmbat melokaanu ndox mi réseau téléphone bi ak yeneen i jafe-jafe yoo xam ne ñoom yëkkati nañ ko ngir ziara bi mën a am ci ñu mucc ayib ndox mi dafa am calcaire borom di ko wax na ko léegi ndox mi du lu nit mën ñu si mën rek ñu def ko ci ndox mi affaire yi euh, sapeur pompier affaire yi euh, faju affaire setal affaire yi courant réseau bi euh, ak sécurité sécurité surtout ci tontom préfet bu département bu kaw Kaolack Leyti njaay dalal xelu organisateurs yi ne lépp luñ ci war a jël dinañ ko def ngir jaara bi mën a am ci ni mu gënee nañ ko daa defee at mu jot noonu lañ ko fas yéenee defee pare nañ pour def suñ kentalaay kattan ñu jàpp ko fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier ñu nekk ziara annuelu Taïba bi comité d'organisation amee mooy kilifay nguur gi mën a respecté seen i engagement yi nga xam ne jël nañu ko.